Parlant si li nga xam moom moom la dëkk UEMOA yi di perte si xaalis jëm si wàllu lempo président euh, Alassane Ouattara dafa waxoon l'impôt doit se payer là où il est autrement dit mhm. l'impôt doit se payer là où il est mhm. parce que multinationale bi nga xam dafa am exonération bu fayul fii impôt bu ñibbee këram la muy rapatrier fa lay fayee impôt et ce sont des millions et loolu muy fayee fii la ko jëlee fii la ko jëlee. bu pare bu demee foofu eh, eh, eh, yóbbu li nga xam moom la nga. Mm-hmm. Euh, gañe mm-hmm. fa lay fayee lempo bi. Mm-hmm. mais jàpp ni nag bu fekkoon ni dañoo def li nga xam ni moo di régulation bu yaatu. Mmh. laal lépp li nga xam ne moo di multinationale entreprise étrangère yépp di fay l'impôt mmh. defe naa ni du ñu jóg sax di jéem euh, topp si impôt donte war nga ko fay si li nga xam ne moo di ay entreprise nationale mmh. parce que qui offre toutes les garanties de représentativité de représentation defe naa ni kooku Sénégalais fi la dëkk bien om yi c'est déclaré au Sénégal mënul dem mmh. feneen mmh. def naa ni war nga am beneen position mmh. beneen position bi nag mooy euh, parce que wax nañ ko mun nga déclarer un milliard nit ki wëlbatu ko fay cinquante mille francs donc loolu yëpp xaj na si mais l'un dans l'autre je crois bien que autorité itam war ñu mën a xool nañuy ñuy doxalee mhm. parce que dafa am benn journaliste bu tudd Hélène Boucher mhm. c'est une journaliste indépendante bi liggéey ay këru taskati xibaar yu bari fële ca Canada mhm. ba pare c'est une spécialiste des questions euh, en Afrique de l'Ouest bi mu defee article récemment sur l'affaire Pape Alé dénoncé lu bari si li nga xam ni constaté na ko comme moom euh, dafa euh, xam-xama màcc na si comme recul démocratique mais dafa fàttali nga xam mooy xoqatal bu ñuy li nga xam mooy les entreprises de presse au Sénégal ba si biir article elle a fait euh, allusion mhm. à la coupure du signal de Sen TV mhm. euh, bi nga xam ne def nañ ko tollanti ko mhm. ànd ceeg li nga xam ne moo di groupe Walfadjri donc te boobu sax bañ koy def dañ ci yóbbaale Zik FM voilà dañ see voilà mu ngoog <laughs> donc ba ba dagg ko sax ba si plateforme digitale yi demoon na ba nga xam ni euh, jéemoon nañ ko fa li nga xam mooy dagg bi donc loolu yëpp bu ñu koy bu koy gis mu nekk accumulation da ngay am beneen jàngat boo xam ne moom ngay xool. Mm. man s'il s'agit de l'homme politique ben je n'hésiterai pas à tirer. Mm. Euh, euh, euh, sur lui. l'homme politique. Ouais, bien sûr. et Sa Bopp. Ouais. je n'hésiterai pas. l'homme politique on le traite au même titre oui, en tant qu'analyste waaw. en tant qu'analyste et mm-hmm. observateur je dis je mm-hmm. n'hésiterai pas à tirer sur lui. bien sûr. Mm-hmm. compte tenu. Euh, d'un constat fait après avoir observé. ne lii en réalité pour man. politique la mhm. pour man c'est une mauvaise communication mhm. pour man c'est une mauvaise approche mhm. pour man lii ak lii ak mais quand même il faut savoir respecter l'entrepreneur bien sûr le self-made man le distinguo voilà, entre le politique voilà il faut savoir il faut savoir le respecter parce que l'opérateur économique ailleurs dans les pays développés. Mhm. da ngay gis opérateur économique boo xam ne en réalité sax il devient l'argentier du de principal opposant mhm. du président en exercice mhm. te mm -hmm. pourtant dara du ko ci fekk on doit arriver à ce niveau là on doit arriver à ce stade là ba nga xam ne nit ki fu mu munti féete defe naa ni euh, da nga koy da nga koy nongul ni position boo xam ne moo ko tànnal boppam la aujourd'hui si on continue à essayer de liquider économiquement le secteur privé national en ni associant lii nga xam ni si la ñu bokk mu di des entreprises de presse comme des médias def naa ni la muy jur suba mooy ay gàllankoor. Mm-hmm. parce que tu prends le cas Baratal c'est un entrepreneur national. Il y en a beaucoup. qui aujourd'hui est totalement isolé. Il qui ne gagne pratiquement plus de marché au Sénégal. Il y en a beaucoup. et qui était a été obligé d'aller chercher ailleurs ay marché euh, autrement dit hors du Sénégal. suba itam dina am beneen entrepreneur boo xam ne bu gisee lii xew. danaan non ce n'est plus sûr moi je préfère aller chercher m'implanter ailleurs et mhm. aller chercher des marchés ailleurs mhm. te war ñu yegg si loolu parce que le développement c'est à tous les niveaux c'est à toutes les échelles mhm. à tous les niveaux et à toutes les échelles voudrait quand même que ni Euh, entreprise ak bu mu munti doon ak mhm. lépp lu muy liggéey et quel que soit son secteur d'activité mhm. c'est une entreprise qui emploie des Sénégalais des Sénégalais de Sénégalais mhm. des Sénégalais yoo xam ne fii la ñu juddoo fii la ñuy liggéeyee la ñu am fii lañ koy gañee ñoom seen wàllu bopp yow si moo mën a keneen ak keneen ku seen dafay lem fay l'impôt parce que bañ la fayee dafa am loo xam ne dañ koy dagg dugal ko gafak ak état dem ci gafako nguur gi gafako nguur gi de ce point de vue-là quand même il faut que l'on puisse regarder autrement mhm. et regarder moo tax j'interpelle véritablement les autorités en question ouais. Euh, pour ñu ñu war a mën a trouver très vite une solution ouais. alternative totale mm -hmm. et irréversible par rapport que li nga xam moo la situation que vit la SenTV SA mm -hmm. depuis pratiquement un an et quelques mois mhm. liée à la fermeture de son compte lu bees la fermeture également de Zik FM SA. Euh, defe naa ni on doit très vite. trouver, trouver une solution, une solution mmh. alternative. Mmh. une solution. définitive mhm. ba nga xam ne suba dootuñu déggati véritablement ni tëj nañu compte bi ak compte bële mhm. te itam ça doit être le combat de tout le mhm. comme aujourd'hui nous disons que le combat pour la libération de Pape Alé est un combat pour tout le monde comme nous disons que le combat pour la défense de la démocratie et des acquis démocratiques est un combat de tout le monde comme on dit que le combat de la liberté de la presse ok et de manière inaliénable et le combat de tous donc de je pense que il faut quand même nit ñuy jóg xam ni effectivement. Mhm. dafa am mbir yoo xam ne war ñu toog di ko seetaan comme lu olof di wax rek li raam. sa ñàgg ba la si ñàgg ba la jëm. Mhm. donc il faudra quand même euh, que l'on ouais. puisse attention jouer balle à terre. Mhm. parce que sinon j'ai l'impression que dans ce pays on veut se transformer en extraterrestre. di jouer des balles à une hauteur boo xam ne. alors que maak yow euh, maak jege il faut quand même. Mhm. ñu wax ni mhm. ñii nga xam ne ñoo yore. au niveau de la direction. Mhm. générale des impôts, des impôts et des domaines. que ni en réalité l'acte qu'ils doivent poser. est le seul acte qu'ils doivent poser. l'acte concret qu'ils doivent poser. l'acte de responsabilité qu'ils doivent poser. c'est d'aller dans le sens. de rouvrir très vite. et tout suite li nga xam ne mooy compte yi nga xam ne tëj nañ ko bloqué ko. Euh, defe naa ni nag. Euh, Euh, ubbiwaat ko. Mm. lu tax ñu ne leen eh li ngeen def erreur la déedéet <laughs> defe naa ne nag euh, fii la dëkk. Mm-hmm. kaka moom fii la dëkk. Mm-hmm. compte yi fii la ne. Mm-hmm. si ay banque yoo nga xam ne fii la ñu fii la ñu ne. Euh, defe naa ne amul leen loo xam ne da nga koy roppet di ko yóbbu Paris. wala di ko jë jëlee Bruxelles pour andi ko fii la des. donc je pense que l' acte responsable doit être posé. et l' acte responsable ce n' que la réouverture véritablement des comptes bloqués. des comptes bancaires donc euh, dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ñu dem peut-être euh, jël quelque publicité mm. ak waa régie ak waa service commercial ñu ñëwaat suubaat ci waxtaan wi. 21 janvier c'est la méga tombola tous gagnants jusqu'à 150 millions à se partager ngir yokk sa wërsëgu gagné activer Ilimax yu wala passe internet wala nga jënd crédit à partir de 500 francs daal di bokk ci gagné semaine bu nekk ay télévision ay maillot ay enveloppe 100 000 francs wala méga gros lot 25 millions ngir mën a bokk tapel gaaw Jazz 155 Jazz wala ak Free Money au Jazz 150 Jazz wala sa application MyFree ak méga tombola free bi ñëppay gagné Difri ci say xéwal. taalibe yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ci ndigalu Serigne Abo Mbacké Fallilou xalifa Serigne Fallilou Mbacké Khadim Rassoul ci ndigal ak kilifteefu Serigne Moustapha Mbacké xalifa Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou Serigne Fallilou di Galas Hadi Gueye moo amati di yëgle di fàttali ak di annuel Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou gi mooy amal at ca Touba Gueye région bu commune bu imam yi quatrième xalif général des Mourides Serigne Touba Serigne Abdoul Khader Mbacké di ci Absa Darou Mokhti Serigne Abdoulaye Mbacké Mahmoud Serigne Khalil Mbacké Falilou Serigne Abdourahmane Mbacké Darou Mokhti Serigne Galas Mbacké moom Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké Serigne Falilou Mbacké Jumada ak yeneen i kilifa programme bi bu nu xëyee jàng alxuraan def ko addiya Alaaji Baara jàng ay xasida ay bernde ak consultation gratuite di paj mu kenn fay dara gannaaw tàkkusaan ak Alaaji Baara góor gi ku jë politique gi ak mboolem autorité yu région de Thiès asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi jërëjëf mbokk auditeurs yi kon ñu dikkaat nag ci waxtaan wi waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy euh, moom la ñu nekkee sànq ba léegi ci seen jeetaay suñu jeetaay bi ñu bokk ñun ñëpp muy les grandes gueules tey jii les grandes gueules parce que tout simplement wax nañ leen ko sànq ginnaaw compte seen TV daaw te conte yooyu ba léegi ubbeeguñ ko bañ ko bloqué ba léegi ubbeeguñ ko tey jii topp na ci yeneen compte et pas n'importe quel compte muy compte yu Zik FM donc yu télé bi tëj nañ ko yu rajo bi léegi tëj nañ ko ña ko def muy service des impôts des domaines ci contentieux bi nga xam ne ci la ñu nekk ak groupe des médias depuis daaw ne dalee na amel xaalis dalee na war a fay ay impôts yoo xam ne daanaka sax njiitu réew mi baale woon na ko baale woon na ko ni mu ko baale mboolem maison de presse entreprise de presse yi nekk Sénégal ndax jafe-jafe yu ñu toll woon ci wàllu Covid ci wàllu yeneen situation ak yeneen ak yeneen kon nag yëf yi fii la toll tey jii may nañ leen nag ngeen mën a def vidéo yónnee ko ci 77 639 42 48 dinañ ci jot incha allah bu boobaa tam ñu yeggee ko askan wi.